asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yépp euh, te dañu topp ci seen télévision MKTV wala euh, GMT TV ak support yi nga xam ne ñooy lëkkaloog ñoom yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen balu ak di balu ak ñépp di nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem jullit yi ak kilifa yépp di am mbégte bu baax a baax ci ñëwaat ci seen jataayu gàggantiku bi nga xam ne euh, seen seen MKTV daf koy def ci taxawaayu daaira muxaddamatul xidma ngir di laabire jullit yi ci bind yi nga xam ne namm nañ cee gàggantikoo ngir man cee jariñu ci seen diine lu yéwénal seenug dund fii ak di yéwénal seen mbiri ëllëg loolu moo tax daayira muxaddamatul xidma di ci ànd ak ay boromi xam-xam waaye ñu gën cee ràññee bu baax a baax sëriñ Mbàkke Abdourahman di ko ànd ak moom moo tax ñëwaat nañ fii ci Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene indi bind yi nga xam ne fas nañ ci yéene gàggante ko xam ngeen ne émission bi ni ñu leen ko waxee ci jataay bu mujj bi su Ramadan jubee euh, dañ koy tëj ba koor gi jàll euh, bu ko defee kon émission bi nga xam ne moom la ñuy def mooy suñ suñ bu njëkk ginnaaw bu koor gi jàllee ngir ñu fas yéene ànd ak yéen ñu ngi nuyu bokk yépp nag di nuyu bokk yi nga xam ne ñoom ñooy réaliser émission bi sëriñ Abdou Khadir Bousso sëriñ Cheikh Diop sëriñ Bàcci Ba ak bokk yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci liggéey bi muy ku mel ne sëriñ Ablaye Lo fële ci Maroc ak bokk yépp rek di leen ndokkeel ci liggéey yu weesu di ci ndokkeel jullit yépp kon su ko defee sëriñ bi dañu lay jox kàddu gi nga nuyoo su ko defee ñu jublu ci laaj yi nga xam ne bokk yi indi nañ ko fi ngir gàggante ko ci bismillah aouzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatulah sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem yi nga xam ne mbokk yi topp barabu xam-xam bi di leen ziyaare di leen ndokkeel ginnaaw bu ñu ziyaaree Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko suñu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral waaye di jaajëfal mbokki daayiratu Muxaddamatul Xidma ci taxawaay yu rafet yi rawatina ci dundal weeru koor gi taxawaay yu am solo ci anam yu wuute ñaan sunu borom doole leen te dëgëral leen nuyoo yeeg siyaar yëpp nañu teg ko ci loxo alimaam sëriñ Afee bu sa muxtaar di nuyu mbokk yëpp di ñaanal jàmm di sàkku ñaanal ñu ko. jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi lay delloo nuyoo yu baax te di la ñaanal sunu borom yokk sa wér ak sa taxawaay bi barakati xaadim rasul mm-hmm. mbokk yi kon euh, xam naa numéro bi nga xam ne ci lañ doon jaarale laaj yi. Euh, soppi nañ ko bii numéro nag mooy bi nga xam ne léegi képp koo xam ne bëgg nga cee bëgg nga yónnee laaj bu agsi ci émission gàggantiku bii nga xam ne Serigne Mbacke Abdourahmane moo koy tontu mën nga ko yónnee ci whatsapp lu jar kenn di woote nag mën ngeen ko yónnee ci whatsapp rek bu defee ojo ci 78 689 28 28 78 689 28 28 boo ko ci yónnee incha allah dinañ jot ci laaj bi soob yàlla euh, dinañ ko tontu. Euh, su ko defee kon sëriñ bi suñu laaj bu njëkk euh, mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci jullit bi wala ci waay waajur wi wala ci genn jigéen ñu ñu ñu forcé ko ngir euh, wutal ko borom kër te d'accord ci te nanguwut. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad sëy li ciy cosaan mooy lu ñu sopp la waaye nag dana doon farata ni ki muy nekk lu ñu sib di nekk lu xaram. géttan jigéen ci maye ko dana dagan dana nekk sax warteef bu fekkee ne buñ ko may wut mu mooy yàlla gis nañ ci moom doxin woo ne moom benn ñu maye ko mu mu tënku wala maye wuñ ko mu mooy yàlla su boobaa day war ci ay waajur ñu ko borom kër ngir musal ko ci mooy yàlla ndax suñu borom moo waxoon ni eh, yaa ayyuhal lazina aamanu quu anfusakum wa ahlikum naara bu dee nag ragaluñ ci moom mooy yàlla kon la la gën mooy buñ koy mayee ñu diisoo moom ba mu ànd ba mu nangu ñu diisoo am na koo xam ne nii way juróom da ko bëggoon a maye jamono yonent bi mbokkam. dina hmm. wax ko yonent bi mu ne ko sañuñ ko ba xale bi génnee ne nangu naa daa bëggoon ñu xam ne ni ñu yilifee nag àgg ci di ñu maye te tàgguwu ñu bokk ci. Hmm. waaw loolu waaye nag fi ñu koy waxee daal mooy koo xam ne xam nañ ne buñ ko mayut mu yàqu kooku moom dañ ko war a maye ngir musal ko ci yàqu. Hmm. jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na mbokk bi dafay laaj mu ne. Euh, moom daal euh, lan ngay laabire ki nga xam ne moom dafa nekkoon ànd ak yaayam diir bu yàgg am ku ko yaayam présenté mu jàppe ko baayam waaye ñu dox lu yàgg daal mu dem ba xam ne kii ko yaayam di bàyyale bokkut ak baayam dëgg-dëgg loolu nag am na ci lu ko jaaxal mu ne loolu lan mooy àtteeb yaayam moom moom ci boppam waaw xam nga euh, sëñ Abdoulaye laaj bi li waroon gën a leer mooy ndax dëgg-dëgg kuy kuy baayam moom hmm. ndax daa am kuy baayam dëggantaan ci sharia yaay ja nëbbu ko di ko wan keneen loolu ñawte fu rëy la ndax yonentu islaam nee na ku wax ne diw mooy baayam te du baayam yomal xamee du ci li muy jigéen ju ne ci kër jaar ci yéen ba jur doom ñu moomale ko borom kër gi yomal xamee nee na ku def loolu du tabeel jenn uh-huh. waaye yonentu islaam nee it góor gu xam ne moo jur doomu ji mu lànk ne juru ko mm-hmm. bu yemal xayma it bu yàlla di xool jaam ñi bët yërmande du ko xool moom loolu lu ñuy tere la léegi nag leerut ci wax ji mooy ndax day koo xam ne daa judduwul ci yoon bu loolu la moom kuñ ko mën a bàyyal it amul bàyyi moom mm-hmm. waaw moom xam ne nattub yàlla ay way juróom ñoo sabab loolu waaye moom doomu juróom nekku ci mm-hmm. waaye nag wax ne diw lañ ko ne mooy sa baay ba mu yàgg ji ndekki kooku du bàyyam te bu fekkee ne ñoom ñaar kenn tëkku ci woon ndeyam kenn du ci bàyyam kañ ko njëkkoon wax keneen moo tax yu mel noonu it baax na eh, di ci am taxawaay yu leer mm-hmm. ndax it nit it nga di ko nax ci mbir ba mu màgg xam ne du noona loolu bu amul tawféex mën na caa doxee xaru mën na caa def yeneen yoo xam ne it ak dundam yàqu ak yeneen yu mënta am moo tax yu mel noonu su ci amee rek ca saasa la ca attay islam nañ ko def. bu dee bu fekkee ne kenn da cee mer ci ñoom ñaar rek wala ku mere bàyyi ji ngir tax mu mu mu bañ koo présenté doom ji waaw ah, xam nga baay moom bu juree doom ci sariya nga xam ne moom daa takk ndeyam mhm. mu mere koog ñàkk ko mere mooy baayam mhm. moo ko war a dundal moo ko war a yor moo ko war a yóbbu daara moo ko war a taxaw mhm. bu ko teggi ko daa daw res boo ëllëg yàlla dina ko topp loolu moom mere ak jëmut yooyu ndax euh, responsabilité bu sunu borom la ci loo sunu nekk pour ko daw ngir ngir beneen sabab waaw donte jubawuta yaay mi na xam doom ji moom doomama aw santam la yor te bu ëllëgee borom bi dina ko laaj lam la ko ci waroon ko ci macha allah jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ne ndax euh, dana dana wér ndax dana wér ci ki nga xam ne dafa yoroon wérdu maaxuus waxtu wi mu koy wérdu mu nekk ci oto di di voyager wala muy dox wala muy nekk ci ay activité daal ba noppi di def wérdu wi ndax loolu wérdu wi dana wér waaw wérdu wi de li ci gën mhm. boo dem xeetu di yàlla yëpp mooy toog jublu xibla mhm. loolu mooy li ci gën teewlu nag mënu ci ñàkk moom bu ngant amee ba muy dox di ko def wala mu ne ci oto yit na teewlu moom liñ bañ daal mooy ngay wërd yorub téléphone wala di seetaan wala ngay déglu leneen loolu moom wari su ko def ndax day dàqoonteeg teewal gi kon kenn du wërd taal ab télé jàkkaarloo mu di seetaan wala ngay wërd takk ab écouteur di déglu ay xabaar wala yeneen ndax day dàq teewlu gi war ci yow waaye léeg-léeg nag ngànt am doo mën a toog benn barab boo man ngaa ne ci oto wala ngay dox di ko def waaye nag teewlu gi moom leneen luy soxlaal sam xel moom na na nga ko moytu sa dem jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer nag euh, mbokk mi dafay laaj mu ne lan mooy atteb imaam ji nga xam ne dafa julli ba sëlmal jàpp ne dafa dolli mu sujjóot ba de salaam bi mu mu leer ko nekku nekku ne ko dolliwut sujjóot na ba de salaam noppi waaye ginnaaw bi mu mu xalaat xam ne moom kat dolliwut julli gi ndax sujjóot boobu maanaam loolu lu ci atteb dara ndax julli na ba julli gi jeex mu sëlmal mm-hmm. kon julli gi baax na ba noppi mm-hmm. juum ne bu fekkoon tey daa juumoon sujjóot lu jiitu muy sëlmal xëy na mm-hmm. mën a wax ne daa juum mm-hmm. waaye comme moom julli na ba julli gi àgg li ci war am lépp am na ci mm-hmm. ginnaaw bi la jàppoon ne sujjóot da ko warte waru ko dara waru ci jërëjëf mbokk bi dafa laaj mu ne euh, lan mooy àtteeb euh, ki nga xam ne dafa jàng suurat aw saar ba'dal faatiha ci rakkab ñaareel wala ci rakkab ñetteel ak bu ñeenteel dara looy dara waru ci donte nag gënut ñaar rakkaa yu mujj moom ci jullik takkusaan ak tisbaar ak gee uh-huh. li ñu santaane faatiha rek lañ ci jàng waaye ko ci jàng faatiha ku saarit du waral sujjóot du yàqu julli gi waaye nag doon lu gën uh-huh. Uh-huh. dañuy dañuy sib tay di ko def nag tay ko moom dañ koy sib ko def ko dañ ko sib hmm, moom daal kii da bokk bi daf ne kii dafa tawat feebar na daal ba am lu man ñetti at yoo xam ne yu tegaloo la yoo xam ne wóoru ko waaye daal amul benn diggante boo xam ne war naa mën a fay ci ñetti at yi am na ñetti koor yu tegaloo yoo yëpp da koo feebar waaye yàlla dogal nag mu wér su wéree nag bu koy bu koy fay lan mooy atte waaw xam nga ñàkk woor gi ngànt ko waraloon hmm. ngant la jeexe na ci coobay suñu borom hmm. na bokk ci li muy sant yàlla yàlla mu ko tegoon am nattu teggi na ko hmm. kon na fay nu mën a fay su ma nee tegalee ñetti weer woor leen alhamdulilah su fekkee ne mënu koo tegale nu mu ko mën rek wax na waaye daal na fexe ba daal mu xam ne am na borom ñetti weer mu fexe ba fay leen bu uh-huh. mu ko gën nit mooy bu ko mën def balaa koor gee dellu si uh-huh. xam naa lim ci toftal dañoo xaw a niroo moo mu ne ki nga xam ne at nuta woor ñetti fan yu toftaloo nan nan lay def maanaam su nekkee ci su nekkee ci weeru ramadan ndax day woor ko dagg-daggee wala wala déet maanaam bu wéree ne maanaam wér gi yaramam mayu ko mu tegale ñetti fan uh-huh. masalan tey bu wooree ñaari fan daal ñette bi da ñette bi du mën a dem mhm. su boobaa day war li mën a war bis ba mu mënti war mu dog mhm. bu ko defee bis yam ci ameel bu weer dem fay ko mhm. bu demoon nag ba àgg ci mënta war bis ndax xam ne nit ñoo xam ne mënuñoo war benn bis dañoo yor wéra di mar woo xam ne bu ñu toogee ñaari waxtu naanuñ mën nañoo bëgg xam mën nañoo xam nit bu àggee foofu te loolu di ko dal ci at mépp jamonoy sedd jamonoy tàngoor kooku woor da koy wàcc ndax koor ak jaamu yàlla yëpp ku ko mën la ko yàlla gàll su ko mënatu wàcc na ko ku mel noonu nag bu àggee foofu dañuy sopp ci moom bis bu set bu ñu xëyee woor moom mu joxe mudd waaye waru ko sax nag ndax woor wàcc na ko dañuy sopp ci moom loolu bu dee koo xam ne nag daa am ay waxtu yu mën a yu mënta woor masalan koo xam ne bu jamono yu sedd amee dana mën a woor su day bàyyi ba jamono yu mu woor bu nag at mépp la mënta woor sedd ak tàngoor a ci yam kooku woor na ko wàcc macha allah loolu leer na mu ne kii dafay laaj lan mooy atteb anniversaire u décès maanaam ñi nga xam ne dañuy seen waajur jóge wala daal seenu mbokk dañuy jàpp dat bi su ñëwee ñu koy fàttaliku di ko ñaanal ak togg ay ñam ak yu demee noonu mu ne loolu lan mooy ab atteb ci lislaam waaw lislaam li li mu bëgg moom ci nit ku génn àdduna sëñ Abdou Lahad mooy waxtu wu ne nga di ko fàttaliku ci ñaan rawatina waajur maanaam ko nga la njëriñ néew saa bu jullee war naa fàttaliku waajuram ñaanal na lool ngay def at mu jot ngay doom daje di ko ñaanal hmm. tuut na ci way jur euh, bu ñu koy ñaanal it dàkk bis ba mu fi jóge woon am na ci borom xam yoo xam ne tàmmuwuñ ko ndax day nuru yeesal ab dëj am na ñoo xam ne loolu moo tax ñu di ko moytu wante hmm. nag nit moom bu fekkee dañ cee lañ cee daje di ko def lu baax la mën nañu jàpp ne lu baax la day jàng alxuraan day ñaan dañuy togg ay ñam sarax ko nit ñi def ko mu nekk mu yéene ko yool ba suba aw yiw la hmm. waaye nag bu buñ ko mënoon saxal ci geneen anam gu gën a woyof mu gën fexe ba dëkk di ko ñaan waaye bu fekkee nag ne at ba at képp la ñuy def loolu bu at mi jeexee ñu fàtte seen waajur bu déwénaat loolu moom ak dog mbokk fa la mën a yem ndax waajur nga xam ne moo sabab sa dëkk ci àdduna nga nekk ba man dara euh, néew na ci moom bis bu set rek nga nga nga fàttali ko benn yoon sax dina waxtu yu julli juróom jege ne waxtu wu ne jàppal ni jamono ñaan la ci yi war a ñaanal say waajur saa boo sujjutee ci la bokk kon nag ku koy def moom wàccoo nga wàccoo nga waxtu di ko ñaanal du tee nag leen loo mën ci lu wax def ko waaye lislaam aayewul aayewul moom lislaam maanaam bu fekkee ne raxut bu fekkee ne raxut mm-hmm. raxut lu ci bokkut ñaar léeg-léeg daje moom fu mu amee rek léeg-léeg mu rax lu ci mm-hmm. bokkut waaye bu raxut dara moom nga xam ne jàng alxuraan togg ay ñam ñaan la mm-hmm. loolu moom ayut donte nag lislaam moom taamuwuñ yeesal ab dëj moom taamuwuñ yeesal sëriñ mi mbokk mi nee na euh, dem na siyaare ji dem na Italie ci dëkk benn dëkk eh, doon fa gan waaye bi mu àggee dañ ko terale mu jiite ngir eh, xëy na man naam ñàkkut day kilifa biñ ko teralee mu jiite nag moom mu jàpp ne dafa war a wàññi mu daal di wàññi julleem ñi ci des àggale waaye fekk na booba nag am na imaam muqiim am imaam juñ fal joo xam fa hmm. moom mu jiite leen wàññi julleem ñi ci des àggale moo ndax loolu bu fekkee ne imaam jéem a nga fa ak teral gi ñu ko teral dafa war a retiré wu bàyyi imaam bu mu jiite wala ak ndax jiite gi mu leen jiite moom wàññi ñenn ñu àggale. waaw bu fekkee ne moom wàññi mooy sunnaam. Mhm. nga xam ne fi mu nekk ab tukki la def si te du am ñeenti fan yu mat yu toftaloo wàññi mooy mooy sunnaam. Mhm. su boobaa mën naa jiite moom matal bu sëlmi lay ña fa dëkk ñëw wala ña fa sax ñëw wàññi mhm. kenn ku ne àggaleel boppam loolu. Oh, donte sib nañ ko donte sib nañ ko ndax loolu day tax ilimaan ak maam moom yee seen yéene wuute moom day yéene wàññi ñoom ñu topp ci ginnaaw yéene matal liñ gën a sib nag mooy safaan bi moom hmm. mooy moom kookee mu waxoon ni muqim jiite ndax su jiite woon moom day bàyyi sunnaam kon topp topp mbooloo ji matal te te ki nga xam ne sunnaam mooy wàññi mu wàññi julli moo gën ci moom matal man bari xamuñ ko hmm. maanaam sunna la ndigalul yàlla bu jaar ci yonent bi asalaam nee na ab sarax la bu leen seen borom sarax saraxoo leen ko kon ki ki wàññi julli nekk sunna ci moom moo gën ci moom mu matal julli kon su su matalee bàyyi na sunnaam moo tax ñu sib ko lool moo tax foofu li tane ilima euh, maam euh, gan gi jiite julli ñaar rakk sëlmal waaye nag balaa balaa taxawal na ko leeral ne képp ku fi nekk moom bu ma sëlmalee na nga jóg àggale àggaleel sa bopp mm-hmm. roy ci keneen àggale sa bopp bu melee na suñ suñ nganuk ndargare eh, kii nekk ci biir julli gi maamoom bi nekk ci biir julli gi di jottali eh, imaam daal di sëlmal mu daal di ne eh, yéen ñi fi dëkk jóg leen mottali <laughs> imaam dafa na lu baax waa yàq na julli <laughs> lu baax na kon balaa balaa taxawal kàbbar daal waaw ah, bala ñoo taxawal leeral bala ñoo dugg ci biir ah, julli leeral ñu fi nekk képp ku fi dëkk kat hmm. àndoo gan gi hmm. wala di gan jóge feneen hmm. su imaam moom day wàññi ñaar rakka lay julli sëlmal bu sëlmalee nag kenn ku ne na jóg àggale sa bopp macha allah jërëjëf mbokk mi dafay laaj xam naa ne aay bi lay laaj ku ko firil xam naa dafa ñàkkul ci jamono yi laaj bi dafa ñëw ci jamono yi élection yo muy bismillahi rahmaani rahim qul illahumma malika al mulk tuuti al mulka man tasaau wa tansiu al mi man tasaau wa tuissu man man tasaau bi yadika al xayr innaka ala kulli qadir waaw jërëjëf sëriñ Abdou Lahad laaya jooju dey ci suuratu Ali Imran la nekk suñu boom da cay saxal ne moom lépp rek daa wax yonent ne ko waxal nit ñi ne leen wala boog yow waxal ne yow sama boroom yow mi nga xam ne yaa moom nguur yaay jox nguur ku la soob mooy tuutil mu ko yaay nangu ci ku la soob nguuram ku falu yow ak ku yaay teral ku la soob yaay toroxal ku la soob mbaax ci sa loxo la nekk kooku joxut du ko am lépp it mën nga ko loolu aaya juy wane tawxiid ak di wane ne doomu aadama yi sabablu lañ sañ sabablu moo nekk ci seen loxo waaye sottal ci loxo yàlla la nekk mooy loo mën a bëgg ci àdduna sabablu jaar ci yoon waaye nag bàyyil sa bopp yàlla buy sotti moom moom lay soob mu sotti ko kon ñii wut nguur di wut àdduna ak ñii wut alal ñu ñëpp war loolu war nañ ko teg seen kanam bul bari pexe wala nga bari lijjanti wala nga yàgg ci barab ba jàpp ne yaa ko moom wala say pexe wala sa sañ-sañ wala sa juddu bu rafet wala sa nanga moo la fa bàyyi coobare suñu borom bis bu yàlla nammee nga jóg bu ñëpp maase woon di la jàppale da ngay jóg te loolu jamono ju ne muy feeñ ci ay barab ay koo xam ne doole ji am ba fay nekk jàpp nañ ne kenn mënu ko fa jële buy buy daanu kenn xam ko daaneel loolu mooy wane ne yàlla moom moom ko kon moo koy jox ko ko sob nit ñi nag kon dañuy sabablu moo tax ku mu nekk ku ne sañ ngaa sabablu waaye boo noppee nag xamal yàlla sottal jërëjëf sëriñ bi bokk mi dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci jullit bi mu am ñetti mbubb yoo xam ne dañoo sobeewu mu boole ñetti mbubb yu sobeewu yëpp soob ko ci lenn ndab ngir raxas ko ndax loolu loolu dana baax wala dafa war a jël euh, bu par mbubbu bu raxasee mi ba noppi raxas mboole wala war naa boole ñetti yëpp ngir euh, setal sobe si li ci am solo mooy na ko wut ba mu set rek mm-hmm. boo xam bu ko dee ber di fóot baax na bu leen dee boole baax na yu mel noonu lu ci gën ci gën ngir xëy na bañ a yàq ndox nga wut ndox ak saabu fóot li bañ set nga xam ne mbu mi set na moom nga wut nag ndox kese dugal ko ci laabal ko saabu day set la waaye mënut a laabal ndoxum mu lax mooy laabal ndax bu fekkee da bëgg koo laabal ba noppi door koo door koo setal léeg-léeg mu jafe ndax ngir laabal mbubb dañuy wax ne póotiit ma na nga dem ba bu mu xeeñ sobe bu mu saf sobe bu mu yow melal sobe fii ak fóot nga ba noppi saa boo xoolee póotiit bi mu saf sobe hmm. mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melokaan bi mu mi seetagul léegi nag bu fekkee da wut ndox ak saabu wut omo wala yooyu nga xam ne mën naa seetal fóot ko ba mu set nga xam ne luy jëmmi sobe nekkutu ci moom hmm. léegi atte ba fi des atte boobu nag boo ko dugalee ci mel ndox mu naam waa nag boole ñaar yëpp ak di sóob par benn di génn ñoo ndax jëmmi sobe nekkatu ji atta bee fi des te boo ko dugalee ci ndox mu naaw. jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na mbokk mi dafay laaj mu ne eh, lan mooy atteb commerçant bi nga xam ne daal soo ñëwee ci moom di jënd euh, danaan la pour ma jaay la ñaari mbir laa lay ñaar laa jaay waaye par benn benn moom li marchandise mi daal du ci nangoo jaay nit ki kenn maanaam bu la nanguwute jaay ñaar yu ànd daal du la jaay mu ne lan mooy atteb commerçant boobu. waaw xam nga kiy jaay moom moom ginnaaw gawuñ gawuñ kiy jënd ci mu jënd. moom sañ ne man kat su may jaay ku am na ñoo dañ naa la man jaayuma en détail grossiste laa jaay wala demi grossiste. waaye bu dee par benn du ma jaay. am na ñoo xam ne it loolu li nga wax ni day am ñoo xam ne dañuy yor marchandise am meneen marchandise mu lamb. ñu boole ñaari lii la ñuy jaay li ci am solo ci jaay mooy nañ xam njëg mu leer. ñu xam ne ñaari yi lañ la jaayee ci nangam. moo xam détaillé nañ njëgg ni bii nangam bii nangam wala dañ ne ñun ñëpp nangam lañ la ko jaayee. bu ci borom xam dañuy wax loolu. loolu nekku ci lu li ñuy tere ci njaay nekku ci muy luy waral lënt. mu réeré xam nañ njëg gi xam nañ li ñuy jaay lu mu doon. Hmm. waaw ñoom dañuy wax ne dagan na. jërëjëf euh, laaj bi ci des xaw naa niroog moom mu ne lan mooy atte bokk bi nga xam ne euh, bu la dee jaay daf naan la daal su ma la ko dee jaay léegi nii njëg gi lii masalan njëg gi fukki dërëm lay doon waaye su fekkee ne doo fay léegi njëg gi fukk ak juróom lay doon wala ñaar fukk. ndax loolu dana dagan ci lislaam waaw dana dagan ci boo jëndee wax lu leer hmm. dañ naa la teew mi teew juróom bu dee leb fukk nga ne leb naa wala nga ne jënd naa teew mi teew hmm. lu ñu bañ ñu la teew mi teew juróom bu dee leb fukk nga jël naa ko hmm. at dem léegi loo ko jële waa ji mën naa jàpp ne da ngay fay léegi fekk yow da ngaa jàpp leb wala nga ngay leb moom mu jàpp da ngay fay léegi lu ci mën a daa war a leer. daa war a leer li ñuy li tudd li ñuy tuddee yëpp sa daa tere bayan tey ni fii bayan ci maalikee noonu lañ koy firee. mooy yow mu ne lii bu dee taw mi taw nangam la bu dee jëm digg nangam nga ne jël naa ko te leeraloo loo ko jëlee lënt moom ci am moo tax dëgganu waaye boo ne leb naa ko mu leer xam ne fukki jur nga war a fay bu ñàggee det sàngam wala dama koy jël léegi maa ngi dem indi xel fay la bu dee lu mu ci ma doon dagan waaye dagan na daal moom jënd mu am dig bu sori nga gën a seeral njëg waaw dagan nit ki ne man li may jaay bu dee tamit taw nangam laa ko jaay bu dee kuy lépp dama ci teg nangam. Hmm, macha allah hmm, loolu leer euh, bi dafa wax ne auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani wax na ci benn aaya yawma tarawnaha tashhadu ardahat wa tadahu kulli saatin amlin hamlaha mu ne eh, bëggoon na nga leeral ko aaya boobu ndax waxtu woowu ay ëmb ak ay am doom day am ba tax suñu borom waxee noonu. loolu ci àdduna la sëñ Blaat. ci bu àdduna yi tukki tukki. Hmm. daa jàpp ne bis penc la. <laughs> inna zalzalata saa'ati shay'un azim. Hmm. zalzala bi am bala àdduna tukki. Hmm. nga xam ne malaaka mi yor bufta bi ma ngi ko seet di nekk ndigal. àdduna buy tukki. ndax bisu ajjuma lay doon ngelaw lay tàmbalee moo tax ngelaw ajjuma ñu xam ñëpp ko ragal mm-hmm. wax nañu it ne mala yëpp bu ajjuma bu ñu xëyee fajar dañ naan yogg mm-hmm. bu jënd fenkee dara xewut ñu xam ne àdduna tukki tey ñu door a fir gi dem seen yoon mm-hmm. ñaari ndijji bopp yi rek ñooy xëy ajjuma duñu yëg dara ndax dëgër bopp muy nit ñi ak jinne yi zalzala boobu nag bu walee bufta bi nafxatu ñetti nafxa la benn bi pour tiit la benn bi nafxa mooy tukkal àdduna li ci des mooy bu koy dekkalaat bu àdduna waaji tukki na wal googu muy wal ngelaw lu sox ko nag foofa nit dana tiit ba wàcc doomam dem tadhalu kullu murdiatin amma ardaat dana bàyyi doom muy namp sànni ko dem ak ni doom fonki yaay fonki doom loolu lépp tukki teg àdduna la waaw nit ëmb ca saasa ëmb ba daal di imbee ko ci saasa ndax tiitaange mm-hmm. Mm-hmm. waaye yomal xeyam yooyu xew fa fii ci àdduna loolu di xew macha allah eh, jërëjëf sëriñ bi la waxee da leen di gis mhm. ñu kaañ kaañ yi mhm. da nga defee dañoo màndi fekk man dawuñ de bu wal tartar yi metti ak jaaxle góob rek fa nekk mhm. wa tara naasa sukaare wa maa hum bi sukaare walakinna adaballahi shadid macha allah jërëjëf eh, mbokk mi dafay laaj mu ne eh, lan mooy atteb mbootaay yi jigéen ñi ñi nga xam ne dañoo am ay association di dajale ay marchandises di ko joxe waaye ci biir loolu euh, am na ci ñoo xam ne suñ leen joxee suñ suñ li ñu dajale buñ la lebalee boo koy fay danga ci ciy dolli dara man sañ nañ ko ci biir li liñ dajale waaye nag am na waxtu woo xam ne su ñëwee li liñ dajale dañu leen koy séddale ñoom ñëpp ñu tolloo ci mu ne ndax accordé gi ñu accordé ki bekk ci association bi nga xam ne danañ ko mën a lebal ci marchandise bi buy fay dolli ci dara ndax loolu dana dagan wala det euh, jërëjëf sëñ Abdou Lahad mm-hmm. boroom xam-xam wala xadis day wax ne qardin jarra naf'an fa huwa riba mm, mm-hmm. maanaam bor moom tuyaaba rek la ci borom war a mm-hmm. lu mën a bokk ci mbootaay yi bu fekkee boo ko lebelee ba fay tàcc dara loolu riba la ay jullit duñ jëflante ci riba ñoom bu ñu bëggoon di liggéey ci alal ji mën nañoo def li ñuy wax xiraat mm-hmm. jël alal jox nit ne ko demoon nga liggéey boo nee ba dat sàngam ñu rek lay séddoo bénéfice mbootaay gi am nga am ci sa wàll itam am jox la fukk ne la booy fay fukk ak ñaar ngay fay ñaar dërëm yooyu riba la ak fu ñu ko maa a def boo liggéey lépp moom li nga joxe woon liñ la joxoon loolu rek nga war delloo si. Mm-hmm. Mm-hmm. kon daal euh, donte dañoo bokk association waaye kii leb moom maanaam wari sëñu ko lebal muy doole. Ah, ndax association buy buy buy jëfandikoo riba la. dina mm-hmm. day lebal ay membre am di ca teg intérêt. teg intérêt riba la donte dañuy wax ne riba bi ñoo koy séddewaat waaye riba am na mën a mat naa mat naa bàyyi xel bu baax a baax. Euh, bokk mi dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci jullit bi maanaam muy fay bor am na bor waaye bu koy fay day am na borub téeméer waaye su koy fay léeg-léeg da koy dagg-daggee maanaam léeg-léeg mu fay bu amee fukki dërëm dugal ca bu amee ñaar fukki dugal ca bor bi mag wala ndax yow bu ñu la lebalee daal da ngaa war a fayandoo lépp loolu lay laaj ba xam. xam nga loolu day dellu ci yow ki la lebal lu mu la wax. waaw bu fekkee da la ne boo may fay kat benn yoon nga fay. Mm-hmm. kon sart ba nga war a bu la nee nag boo may fay loo am andi la ba mu mat boobu yéen ci déggoo li waxu daal mooy mu ne la fayanoo ma ko benn yoon nga ne ko du ma la ko benn yoon ndax al muslimun ala shurutihim maa ngi lay lebal ci sartu téeméer bii kat boo koy fay téeméer ngi indi bul ñëw di mu jox par ñaar fukk ndax du ma amal njariñ nga ne waaw ba noppi dem ba ci biir bu ko lànk moom boo ko defee da nga xëtt ab sart yaa ko sartante woon hmm. même bu fekkee ne waxuloo ko tamit koy avance ndànk te te mu jubu ca. te ah, te te mu ah, nangu. Ah. nga dikk jox ko mu nangu. Mm-hmm. waaye dara nekku ci. waaw mm-hmm. loolu leer na euh, jërëjëf euh, mbokk bi mu ne euh, maanaa ñi nga xam ne dañoo am ab benn société taxawal benn société ñoom ñëpp ñu bokk société bi di moo xam industrie la wala société commercial wala dara maanaa su fekkee ne ña bokkoon société ba kenn faatu na ca maanaam nan la ñuy def. waaw ca kenn faatoo lam moomoon dañ koy miiras. ndax alalama bu fekkee ne ay ndonoom bëgg nañu wéy wala boog dañ koy féetale kenn ñoom kooku ñuy wéyal société ba xam naa nekk am na société yoo xam ne maanaam bu fekkee da ab la ci ab ab benn benn benn compagnie wala yu mel na action yam ci amoon tey moo ko moom mën nañ koo miraas ci ay pourcentage mu continuer liggéey ñu xam ne lu ci juddoo nangam pour cent ya soxna sa soxna yaa ko moom nangam pour cent ya doomu góor yaa ko moom nangam pour doomu yaa ko moom ñu bàyyi muy liggéey wala ñu miiras ko féetale ko kenn ci njaboot gi kooko ñëw nekk continuer loolu muy tam wala sax ñu génne ko jaay ko xam ne nangam lay jar génne xaalis ba séddale ko ñu newoon ci société bi ñoom wéy wéyal seen liggéey wala ñu boole ci ku noonu waaye moom daal bokkatul alalam it tuxoon na ci loxoom jëm ci ay loxoy njaboot war nañ ko leeral ba xam kooku moom ñi ñi bokkaloon daal war nañoo xam xamal ñi koy dondu ne leen. Ah, am na fi nangam seen waajur bi ah, am na fi nangam société bi ñu xam bu ñuy miiras xam ne nangam yooyu ci li ñu war a miiras la bokk. Hmm. macha jërëjëf sëriñ bi euh, mbokk mi dafay laaj mu ne euh, xam na laaj bi lim ñëw bari ne ku toog ku dog te tay ko ci bëccëgu weeru koor lan mooy ab ateem. ku dog te tay ko. ki nga xam ne dafa dog te tay ko. Hmm. te fekk mi ngi ci bëccëgu weeru koor. waaw ah, loolu de bàkkaar bu rëy la. Hmm. képp ku ko def. koor ga yàqu na te da war a àggale koor gi te danga fay bis ba te day danga kafaara waaw ñaari weer toftale ko wala leel juróom benn fukki miskin ku ne mbëgg waaw mel ne ci fay weeru koor la wax sax ci fay fekk ah, da ah, bu dee day fay moom dafa na lu xaraam waaw masalan tey daa amoon ab bis bu mu waroon a woor ci ramadaan hmm. mu xëy di ko fay dem ba ci digg bëccëg rek Eh, xam na yenn mbokk yi ndaw ko ndaw ak ñeneen mbokk seen laat yi mm. gis ñu añ bu neex rek tax ñu ne moom comme comme comme néew ci Ramadan moom damay añ daal dagg ko def na lu xaraam bu xasee def lu xaraam nag sañ naa àggale bis ba lekk ko moom mm. am na bàkkaar bu dappee nag fay bis ba mu ngi ci ba tey mm-hmm. ndax borom koor ga fayagu ko ndax dagg na ko waaye du ci kafaara waaye nag amul kafaara kafaara moom ci Ramadan la yem biir Ramadan la yem mm. ñu xasee génn Ramadan kafaara amut Euh, mbokk mi dafay laaj mu ne euh, ndax rot na ci téere ci téere sëriñ bi foo xam ne dafay leerale euh, salaatu fil bahri maanaam julli gi mu julli ci géej gi. waaw gisagu ma ci wax de waaye gis naa ñaari borom xam yoo xam ne ci sëriñ bi lañ déggee lañ wax sëriñ Modou Khalifa Niang di ci gere am na ay nettali yu nettali yoo xam ne sëriñ Tuubaa kooku nettali bokk na ci nettali na ko julleem ci géej gi. sëriñ Mawlaay Bousso Mawlaay it. am na xasida def di ci def. xar baaxi sëriñ bi yoo xam ne ci sëriñ bi la ko déggee yëpp nettali na ci julli sëriñ bi ci géej gi doy na ci saxal ne sëriñ bi julli na ci géej gi macha allah euh, mbokk yi mu ne ndax dana dagan miraas euh, alal ju xane dafa araam alal ju araam daal ndax miraas ko dana dagan dañuy xool lu tax mu araam bu dee alal jàmbur la moom kenn waru ko miraas benn waaye bu nekk di sàcc alali jàmbur di sàcc ba faatu bàyyi fi alal moomut alal ja ay ndonoom moomuñ ko dañoo war a xool ñam doon sàcc seen alal ñu delloo leen ko bu dee alal joo xam nag ni mu ko wutee dëgganut da doon jaay ñollu da doon jaay mbaam xuux wala yooyu noonu alal ji araam na ci moom am araam na ci njabootam kenn du ko miraas waaye bu njaboot gi nekkee ay fuqara ñàkk mën nañ koo séddoo bi wasfihim fuqara waaye buñ ko séddoo jàpp ne dañ koo doon seen baay seen baay bàyyi leen lu ñu doon waaye nag alal la ju ñuy jox ne ñëpp ko bokk ñàkk ñi ñu cee ñoom ñàkk lañ. Hmm. kon mën nañ koo jël ngir ne dañoo ñàkk waaye buñ ko jël ne dañ ko doon seen bàyyi. Hmm. waaye doon dañu ñàkk ña waajur lañ sax doom lañ sax. doom lañ waaye doonuñ ko maanaa du luñ doon. lu doon yëfi miraas daal waaw du miraas hmm. dañuy jàpp ne daal alal la joo xam ne nii waa ji faatu na waaye moomu ko ndax dëgg kenn du ko miraas ndax dëgganu ko. dañ ko war a joxe rek ñi ñu koy jox nag ñoom ñii ci lañ bokk te yaayoo nañ ko. macha allah jërëjëf sëriñ bi xam naa ñu bàyyi la nga tàggoo ndax mu loolu moo doon laaj bu mujj. ci jotaay bi. waaw kay jërëjëf sëñ Ba di dellu di sant mbokk yi di ñaan yàlla dafal ñu tawféex dafal ñu tey siir jariñu ci liñ fi doon waxtaanee te jariñ ci mbokk yi koy déglu ñu ngi jéggul ñëpp di baalu ñëpp àq. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal tawféex ak taysiir ak wér. Eh, xam naa mbokk yi yàkkamti woon nañ jotaay bi tàmbaliwaat lool. ngir jariñu goo xam ne ñu ngi ko ci jariñu ak uh, fu ñu toll rek di woote ak uh, sant ak nemmiku ngir yittewoo seen diine ñoom it ñu leen di sant bu baax di leen gërëm hmm. uh, di sant it yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci MKTV ak GMT ak mboolem support yi nga xam ne dañ koy tuxale foofu moo xam ci Instagram la wala TikTok wala ak fu mën a doon rek ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ci yaatal gi ñu yaatal njàngale lislaam yi di sant sëriñ Abdul Xaadir Bousso mi doon réaliser émission bi ak sunu caméraman yi ñu àndal sëñ Cheikh Diop ak sëñ Bàcc Ba mbokk yi xam naa ñu ngi leen di dig daje kon ci suñ beneen jataayu gàggantiku ñu fàttali leen rek ne képp koo xam ne am nga laaj boo bëgg a laaj mën nga ko yónnee ci 78 689 28 28 689 28 28 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. waj'alhu da'ban maskana ta'allumi وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم